waaw souhaité woon nañu tey promoteur am combat bu neex la mais day dépendre xam nga combat boobu si Balla Gaye lay dépendre parce que euh, tey quatre vingt quinze pour cent yi ama Boy Niang ci gagné waaw Balla presque mu ngi mu ngi ñuy jege tuuti amatul lu muy prouvé si làmb waa amatul lu pour prouvé kon combat bi Boy Niang ci gagné waaw ñu ngi ña voilà si làmb la làmb la aussi boo xam dina dina mën a dekkiwaat làmb. mais normal na parce que làmb ji tey euh, adversaire bi mbër mi si boobu mooy def choix adversaire am waaw tey Balla Gaye ku ko neex mu bëre si làmb waaw bu defee bu fekkee moo def choix si Balla si si ama si si Boy moom la mais tamit du ma wax ni du combat bu logique parce que Boy Niang euh, euh, Boy Niang mbër la boo xam mu ngi yëg. est-ce que du combat risque ci Boy Niang aussi. non amul amu si amu si amu si benn risque. tey bu ko li ma la waxoon rek tey boo nekkee ténor di bëri xale cent pour cent risque yaa koy gàddu boo ko daanee dañ ñaan la xale bu doon yéeg la na defar waat bu la daanee bu yeboo moom nga pare. Euh, dama dégg ne Bombardier ko desee ci làmb